الإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi yëkkati baatub asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jëme ko ci mboolem sang yi nga xam ni ñoo ngi jàkkaarloog seen rajo télévision Walfu TV di leeru jamono di ko wéttali ko saa su nekk di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi ci weer wu mag wi fa tabaarakallahu sang yi nga xam ni ñoo fi wuutu mag ñi toog ci këru diine yi di sàmm njaboot gi di leen aar ci ndeyjoor ak càmmoñ ci kanam ak gannaaw ci kaw ak ci suuf muy xalif généraux yi bàyyiwuñu benn këru diine këru diine bu ci nekk ñun ñi ñëpp ak waawal fajri ñëw ba ci kanamu xalifa ba sukk suñuy bëti om tàllal ko suñuy loxoy xol nuy ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla toogaayam bi yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool yàlla mottali yéeneem ci barke yonent bi sallallahu alayhi ak ci barke mag ñu baax ñi ñu wuutu noonu it lañu koy defee ci sang yi nga xam ni ci këru diine yëpp rek njaboot seen njaboot góor ñeek jigéen ñi mag ñeek mag ñi noonu la ñu nuyoo bu baax a baax ki nga xam ni mooy kilifa kër gi di si Sidi Lamine ñas di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla sa borom mottali yéeneem ci kër gi ak ci réew meeg ci biti réew bi jaahi rasulullah di sàkk ci moom ñaan itam fa tabaarakallaahu noonu la ñu nuyoo mboolem ñi nekk ci kër gi ñii di fi xëy ñii di fi yendu ñii di fi gontu ñii di fi fanaan ak fu waay nekk rek rawatina ñi nga xam ni équipe bi ñu àndal actuellement nii fas yéene eh, ànd ak yéen ci seen émission ziyaara bàyyiwuñu kenn noonu la ñuy nuyoo bu baax a baax mbokki imaam yi ñi nga xam ni ñooy jiite jaamu yàlla yi ci jumaa yi ak jàkka yi ak zaawiya yi ak barabu jullikaay yi bàyyiwuñu kenn suñu mbokki naayib yi fàttewuñu leen bilaal waaye sëriñ daara yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax bàyyiwuñ benn daara daara ju ci nekk rek nuyu nañ sëriñ ba ziyaar ko nuyu dongo daara ya nuyu leen ñoom ñëpp ak kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn soppe yeeg am di jàmm yi ñëpp rek ñi ci biir réew meek ñi ci bitim réew nuyu nañ ñëpp ziyaar ñëpp ñu ngi am mbégte lool ci àndaat ak yéen ci seen émission bii di ziyaara ziyaara nag dooral nañ leen émission bi fii ci weeru koor gi fa tabarakallahu nu tàmbalee ko ci waa kër Cheikh Sadul Abi ànd ak Modou Mbuub fa tabaarakallaahu bis ba delsi nu ànd ak waa kër Serigne Touba radiallahu taala anhum ànd ak Khadim Gueye fa tabaarakallaahu bis delsi waat tey nu ànd ak waa kër eh, Ndiassane di waa kër bu naama seexal bu kunta bu Ndiassane xalifa bu tedd di alxaaji maam bu Mamadou Kunta ñu koy ziar bu baax a baax a baax di ziar porte parole ba njaboot gi bàyyiwuñu kenn mag ñi ak mag ñi ñëpp ñu ngi leen di nuyu góor ñi ak jigéen ñi bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallaahu noonu la ñuy nuyoo bu baax a baax ñi nga xam ni ay taalibe xaadiriya la ñu bokk ci kër maam bu Mouhamed Kunte fa tabaarakallaahu nekk fépp ci àdduna bi nuyu nañ leen ziar nañ leen fa tabaarakallaahu noonu it la ñuy nuyoo bu baax a baax ñi nga xam ni ñu rot ci tey ci saal bi bàyyi ko fu sori rawatina bar Bargny Njaasaan tudd Bargny nu bàyyikoo fa ñëw ànd ak euh, délégation bu mag bii nu àndal dégg ngeen ko ci bànd annonce bi ku ci mel ni Cheikh Mbaye Ndiaye Tabala fa tabarakallahu euh, ku ci mel ni Cheikh Arouna Mbodj tabarakallahu ku ci mel ni Cheikh Ndiaga Mbodj fa tabarakallahu ak délégation bi ñu àndal yëpp Cheikh Mbaye Ndiaye dina ñëw ci gën koo yaatal ci kilifa yi nga xam ni ñu ngi ci biir jotaay bi di ay sang fa tabarakallahu ñoom ñëpp teew noonu ndeysaan di noyyee rek euh, dëkk bu tedd ba di Njaasaan kon mbokk mbokk yi sunu gan yaa ngi nii yegsi nanu xanaa mu leen rek nu dalal leen nag nu indil ñu li ñu ni indil fa tabaarakallaahu ci émission tey jii kon euh, Cheikh Arouna Mbodj salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Arono moom da doon nuyoo rek xam naa ma ñëw ci sëñ Baye Ndiaye Tabala sëriñ Baye Ndiaye salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, maaleykum salaam wa wa barakaatu euh, gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi Seydina Mouhamed euh, di la sant bu baax di sant it borom kër gi bu baax di sant it xalifa ba di ko nuyu. aji Mambu Mamadou Kunta di ñaan yàlla yan na fi yàgg te wér e Kabir kon ñu delloo la kàddu gi rek macha allah. fa tabaarakallaahu mbokk yi ñuy am mbégte lool ànd ak sang yi nga xam ni ñoo ngi jàkkaarloo tey seen rajo télévision Walfu TV di leeru jamono. Euh, ku ci mel ni kër Diop ca marché poisson ak nan si Dem euh, PCA ba foofu ca marché poisson Moussa Diongu euh, daayira Ecobank ñoom ñëpp ak Serigne As Njëgën Muniru Ousmane ak Cheikh Maguette Guèye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon taaribe xaadriya nekk dëkk fële ca Point E ak soxnaam su tedd soosu di Adja tabaarakallaahu ci point e. ñu leen di ziar ñoom ñëpp rekk nga xam ne ku tudd tarixa xaadir rek seen xel dem ci ñoom ngir jeex tàkk gi ñu jeexoon ci ndeysaan euh, tarixa xaadir yaa kon nag euh, Cheikh Arouna Mbodj ana lan nga ñu indil ci wàllu njàng mi ci émission ziar bi tey waaw ah. jullee sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw tey moom li ñu andi mooy bëggal leen rek. ay ca bopp bëggal ay ca bopp ilaaha illallah. ci yàlla laa ilaha illallah wax leen muhammadu rasulullah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ilallah mbooloo mi wax leen muhammadu rasulallah nabi la ilallah ker bu ni yen dog abdallah jadaani yen doom bek ker nu fanaanoog moom daanu fanaanoom bek min bay ni kala juddoo kenn mënu koo ñaawal buñ koy sàkkal ay teraanga boobee mu ngi fekk mu ka baax boobee feeñagul ci àdduna te mu feeñe waa maka bànneeku yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا لا إله إله إلا لا سبحان الله الحمد لله

ya mana ko soppa Seydina Muhammad ne ni say baaraam ku soppa Seydina Muhammad say baaraam ñu màggal ger ga ca Madina Rasul wilayati wa kawkabu rabbaniyati misba'u rahmati al-mursalati wa shamsu dinal islam man tawallahu mawla'u bihi wal himayati ku sopp Seydina Muhammad ne li say ba am ñu magal waaji ca Madina مقبت الوقت ماوى رزق حيث الانوار حيث البقاء حوث الفرد وتوابي وضحي وخلق وربي دماء أبدا ما عاد منها لم يخير حياتك البلاء حرام أبدر وبيت الغنام ومقام فيه مقام تلاؤ góor ak jigéen mag ak ndaw def leen nii ñu màggal Seydina Muhammad tabaarakallaahu oui am na solo am na solo lool tabaarakallaahu euh, su ko ñuy békk lool ci ki nga xam ni noo ngi ko doon xaar fa tabaarakallaahu agsi na léegi di doom ci xalifa bi tabaarakallaahu di alaaji Mambu Mamadou Kunta doom ci moom tabaarakallaahu yegsi na war a yor nag waxtaan bi waaye bala may ñëw ci moom rek dafa am loo xam ni tudd naa ko sànq bi ñuy tàmbali mooy ku tudd Njaasaan tudd Bargny li waral loolu laa bëgg rek ñëw ci Cheikh Mbaye Ndiaye Tabala gis ngeen ko léegi ci Tabala ji yaakaar naa ni kon buñ ne ko Cheikh Mbaye Ndiaye Tabala juumunu macha allah yàlla nañu yàlla wutu ci yow fayal ñu la kon lan moo waral bu ñu tuddee Njaasaan de waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, Cheikh Kabir laaj boobu dinaa ci sawar lool ndax am na foo xamante ni mag ñi ñu ngi koy way naan njaasaani géej jafe woon na ndox mam bu moo fa julli naan ndox ma baawaat njaasaani géej googu uh-huh. li ko waral mooy barñi géej beneen bi bi ci njëkk mooy euh, dex ga ba Cheikh bu Kounta ñaanoon dex ga walla nga ay sangu di sayaan yi di fay naan di fay def lu ne tey centenaire bi paase nii dimaas bi passé suñu rak suñu xarit suñu soppee doon ko màggal muy Cheikh bu Diop àddina bi yëpp teew fa ku dul xaadir sax gis na ci boppam ndax téeméeri at ci suuf du du du caaxaan yàlla dogal nag Cheikh bu Kounta def ay kéemaan yu rëy rëy mm-hmm. ci wayam ñu ngi koy wax cheikh bu mu wax ci wayam ne at ak benn mësta génn Ndiassane te it loolu soxla ñu ndax itam boo xoolee xool xool ma delluwaat ci question bi ci li nga ne Bargny yàlla dogal cheikh bu Kunta mës na ñëw Bargny mm-hmm. waaw maam cheikh bu mm-hmm. mës na ñëw Bargny mm-hmm. ba mu ñëwee fekkoon fa suñu bàyyi maam Samba sunu maam maam Samba fekkoon fii sunu maam El Hadji Njàngaan Sarr ak mag ñu baree baree baree baree yàlla dogal ci loolu ñuy dox di dox di dox di dox ay doomam yépp ku ci masa a toog xilaafa Njaasaan dale ba si Cheikh al bu xalifa mii sëriñ bu xalifa mii yaayam ñu ngi koy woowe soxna astu Bekaay soxna astu Bekaay moomu cheikh al Bekkaay ko jur cheikh Bekkaay ku ko jur cheikh bu Kunta te soxna Astou moomu tey su nekkoon góor bokk bokkoon na si ñi moom yaasaan est que kon loolu kéemaan la. Mhm. dale ko ba ci cheikh al Bekkaay si cheikh Sidi Lamine di ba ci alaaji Moodu borom Kamataan bi cheikh ba ci cheikh Sidi Yaxya ba ci Baye Bou mii xam ne mooy boroom jamono. ba ci tey ci alaaji Mambu mii nekk tey di premier set toog ci xalaafa bi du ñaan yàlla na fi yàlla yàggal lool wax leen alaaji Mambu alaaji maam bu yàlla na fi yàgg te wér. yàlla na fi yàgg te wér. alaaji maam bu kunta yàlla. na fi yàgg te wér. E, ñu nekkoon ñoo xamante ni ku ci toog xilaafa rek sa tijjeeku sa première sortie bari nga bari nga koy def. Hmm. kon loolu di ay caaxaan. Hmm. yàlla dogal nag ci biir loolu suñuy bàyyi ñëw nekk ci xaadiriyaa bi. Hmm. di ci yëngu fonkoon ko lool e, suñu bàyyi Cheikh Modou Mbodj suñu bàyyi Cheikh Arona Ndoye suñu bàyyi Cheikh Moussa Ndiaye moo ma jur yàlla dogoon sama bàyyi Cheikh Moussa Ndiaye dugal tabala barñi kon maanaam tabala ji danga ko donn dama ko donn waaw kii toogit di way moom it mu doon ko ci bàyyam Cheikh Modou Mbodj wallaay ndeysaan ñoom ñoo daan taxawee taaxum jaasaan ci jamonoy Baye Sidy Lamine mhm. sama waajur góor ba mu àndee tabala barñi ñu naan Cheikh Moussa Ndiaye day Ibrahima Ndiaye yow sa doom ji aw xaw ma lan moo tax u di ko bàyyi mu la tëgg ndax ab la bu xamee nu ko xam tëgg mu ne leen tabale jii de bu soobee yàlla ci laay tagg yàlla tagg ci yonent bi tagg ci Cheikh Sidi Lamine muy xëccëg xëccëg mag ñi ba mag ñi ne leen kam noonu la nañ leen jël tabale yi yóbbu ko ci bàyyi siidi bu ñu ko yobboo ci bàyyi Sidi Lamine eh, bu ñu joxee ndigal ñu continuer ak tabale yi ak zikar yi bu fekkee nag joxu ju ndigal nag ñu xotti fa tabale yëpp mm-hmm. euh, sama waajur nee na bi ñuy dem ak ñoom suñu bàyyi Cheikh Babacar Niang nee bi ñuy dem ku nekk mag mu nekk mu ngi jël jaas yi dugal ko sa biir yëre yi ah. pour maanaam bu sëriñ bi joxee ndigal rek ñu xotti ko xotti allahu akbar waaye ba ñu demee bàyyi sii dina leen waaye dénk dénk dénk dénk maam du noonu waaye ndeysaan xale li koy sawarloo ci diine mm-hmm. yàqal ko kon nag nañu tëgg tabala yi ndax tabala yi ñu ngi koy tëgg fii ci dunia ñu malaa nga koy tëgg ci aras mhm. ah, di ci kontaan nag di ci bëgg di fier ci li ma doon mhm. Arona it fier ci li mu doon. dëgg la macha allah ñu ngi ñaanal yëpp loolu la ñuy kii ba si kanam. tabaarakallaahu Cheikh xam naa eh, balaa Cheikh bay ñëw. Mhm. Eh, ñi nga xam ne ànd nga ak ñoom ñu jóge Bargny. ak yeneen feneen sax fu dul Bargny. Eh, te nga xam leen bu baax a baax te ñu bàyyi lépp tey ay kilifa. waaw ma ciy jëkkee rek bari ñi nga ñu jógee muy njaga sàmm di leen gërëm bu baax euh, man ki njaga sàmm man lu ma am lu ne bari ñi ma ko gënal lu ma am lu ne njaga sàmbaa ma ko gënal ndax it fa laa juddoo fa laa ba teraanga ji fekk ma fi ci biir loolu ñi ñu àndal jóge bari ñi muy ay cheikh yu baax duma tudd su ma tuddee tur rek am problème ndax wax dëgg yàlla fi ay kilifa rek fi toog waaw ki ma siy jiital dama ciy jiital ci Khadir Mbodj mi xam ne Jeyli Mbodj mii mooy taaw ñoom Arouna Mbodj mii est waaw bàyyam mu ko tudde Cheikh Abdou Khadir Jeylaani est moom laa ciy jiital teg ci ci góor ñi ci góor ñi Cheikh Abdoulaye Thiombane mhm. teg ci Cheikh Djibril Diop mhm. kooku moom it daana tëgg tabala ay waajuróom yëpp ci loolu lañu nekkoon et teg si ci sunu mag ju góor Ousseynou Ndiaye moo fi teewal suñu taaw Sidi Lamine Ndiaye teg si it wax dëgg yàlla secrétaire général daayira bi muy Omar Dem ma la toog ànd ak ñoom ubbi combaat ñoom ñëpp daal beneen bi ci jigéen ñi ki ma ciy jiital damay jël sama yaa ndey kan rek yaa ndey kan ñang mu yóbbaale ñëpp yaa ndey kan ñang su jëlee mën naa yóbbaale sama mag Awa Ndiaye ak it ngeen baal ma suñu yaay yaay maam Ngoone juuf mhm. moom bàyyiwuma benn yoon suñu yaay yaa Awa Seck mhm. ci jigéen ñi nag ñi xam ne ñoo géré jotaayu jigéen ñëpp mhm. muy Fatim Seck laay jël mu joxaale lépp yóbbaale lépp waaye nag duma ci fàtte sunu doom ju baax di sa soppe euh, di doomi Baye Omar Ba Baye Pël ndeysaan doomam a ngi si jotaay bi waaye ci biir loolu Kabir dafa am benn benn mbir bu kéemaane ci yëfi Cheikh bu Kounta hmm? muy ñi nga gis ni sol bleu blanc yi waaw seen daayira mu ngi tudd daayira soppe nuuru Cheikh bu nuuru Cheikh bu Mouhamad Kounta siège social bi nekk fii Derkele allahu akbar ah Cheikh Adama Diop aadama Gueye jiite daayira bi di présidente bi ndeysaan Cheikh Bekaay Sidi ba nekk ci wet bi waaye ci biir loolu mu am si sama yaay sama yaay bopp mm-hmm. muy seene bu njaay mu nga nele toog mm-hmm. bëggal ma boppam di ma defal lu ne lu ne la may defal tey jii li ñu ndogoo li fi ne li fi ñeet yëpp ñoom daayir bi ñoo def lépp parce que sànq bi nga bi may ñëw mu may woo mu ne non na waa bari yi jubal sa kër ga dogee foofu jël fa seen temps waaye bi ma la woowaatee joxoo ma permission ma ne ko parce que xam naa xërtëm te daayira bii ma leen di ñaanal yà yàlla hmm. soppee Nuuru Cheikh bu yàlla yàlla dëggal seen taxawaay mi amiin wax dëgg yàlla lii metti na lool wallaahi ku la jël en charge hmm. jël ndogu yëpp wallaahi dalal ci waa Bargny yëpp jox leen ñu lekk jox leen ñu naan hmm. waaye waa Bargny waaye fii bu tàcc dagaroon sax am de dagar nii rek nan def nii rek wallaay xol bee sedd xol bee bi sedd xol bee sedd ndeysaan waaw ci biir loolu Kabirou. jërëjëf waaw jërëjëf euh, Cheikh Mbaye Ndiaye Tabala xam nga dafa am loo xam ni mënut ñàkk ndax mobilisation dafa metti mhm. te bar ñi dafa sori mhm. te bàyyi ngeen yi te yëpp depuis sunu jon yàllay tey seen crédit fekkewu ko mhm. seen jotaay moom ngeen di waxtaane ba sunu jon yàllay tey kon bu nu yegsee te am déggu leen baatu jërëjëf man sama làmmiñ kenn ku nekk su ma ko xamoon maa koy génne waaye comme moom xam na leen moo tax ma ne ko di leen gërëm yéen ñëpp waaye damay bañ rek li daloon waaja dal dal leen dafa dem ci mbooloo mi ñu gërëm ñëpp gërëmuñu ko tudduñu ko mu ñibbi di kaas papa ji ne ko lu la metti mu ne ko dañoo tudd ñëpp bàyyi ma papa ji ne ko yaa gàtt xel yow bis ñëw na nga juddu ilimaan ak ñëpp daje ñu tu nopp nodd ci nopp li xam ci nopp bi tudd la yow kese bàyyi ñëpp bis boobu dalaa doy tudd kerek tudduñu kenn yow dong lañ tudd ba noppi di la jël di la ñaanal bis boobu doyu la nga bëgg a naqari ku la tudd looloo tax ndeysaan ñi dem ci mbooloo léeg te tudduñu leen du ñëpp la ñuy mën a tudd kuñ ci tudd rek na sa xel dem ci bis boobu nga xam ni keroog ñëpp la ñu bàyyi tudd la yow dong tabaarakallaahu kon su ko defee damay ñëw rek eh, ci cheikh bi mu dikkaat ñun ci njàng su fekkee amoo kàddu gu ñuy tàggoo ndax xam naa ni boo demee ca tabala yi doo delsi waaw kàddu gi may tàggoo mooy lan ndax Kabir <coughs> bari ñi benn bopp la mhm. te yàlla dogal am ay xew-xew yu fa am xew-xew yu tiis foog muy suñu papa Cheikh Assane yàlla dogal doomam bu ñu wax merem Ndione génn àdduna bokkoon ci ñun koy jaale yaayam yaay Binta Njaay Gél di ko jaale it sëriñam Cheikh Bounama Kounta ah beneen bi ci tegu sunu mbokkum taalibe bi di sunu wëlëre di suñuy mbokk muy Pape Mandaw Diop baayam di nekkoon mu xadam ci daay ci tarixa bi di Cheikh Abdoulaye Diop. Mhm. moom it aussi ñu koy jaale ay fameem di ko jaale ñëpp ah, di jaale it sunu imaam mhm. imaam ratibu barñi mhm. muy El Hadji Abdou Seck ñu koy jaale bu baax di ñaan yàlla yàlla ak ak it sunu maam yaa Marete Diop El Hadj Abdou Seck mhm. doomam mooy préfet Dakar. ndeysaan waaw ñu koy jàllee. jërëjëf famem yëpp. jërëjëf dëgg yàlla ah loolu si doon teg ak tamit dimbali ma rek. Mhm. ndax it nag di nuyu. Mhm. taaxa sàmb waaw dëgg yàlla tamit di gërëm suñu mag Jibril Ndiaye Faye di ko ñaaral yàlla bu baax. di ko ñaar yàlla jàppale ko. waa dinaa ñëwaat. waaw jërëjëf incha allah waaw ko <laughs> defee kon euh, dañuy ñëwaat ci euh, Cheikh. Euh, Euh, Arona Mbodj Cheikh Arona li nga jot a ubbee doy na waar waaye balaa boobu ñuy nuyu Cheikh bu Diop bu Ndiassane suñu xarit suñu ñu koy ziar bu baax a baax di ziar waa Ndiassane yëpp waaye fàttewu ma soxna Umu Kunta ba suñu maam bu tabaarakallaahu nga xam ni gàmmu Ndiassane bu nekk këram la ñuy dal ak borom këram bu tedd boobu di eh, Cheikh Kunta tabaarakallaahu ñu leen di ziar ñoom ñëpp waaye suñu bàjjen Cheikh Fat Samb ca Ndiassane ñu ngi koy ziar baax Pape mbay ca Ndiassane waxoon naa ko sax na ñëw xawma fu mu ne waaye tabaarakallaahu nu ñëw rek ci cheikh bi kon nga dikk ak nun ci loolu ñuy dolli ci way wi bi day neex na lool xawma boo ci dolli macha allah jey nañu gam jéema jël jey lee di kaway sakorir waa yili yili kamangaay yili kodaa jelaane jeli kamanga budore jelai jeli kamanga ay dalu bay jela nanu ga sant yalla rahman jema jël jele di kawai sa kurirwan ma dini kamanga ay waje kamanga

day xam-xam te xol ba day lee adi dafay tabe adi xam-xam te xol ba day lee adi jaayu leen adi dafay tabe adi xam-xam ba day lee alu day lee dooj leen si seytaan jili jili kamangaay jili bu doore jili jili kamanga koy ca kaw Xadi dafay tabe tabaarakallaahu macha allah baay bu jàngaani baax dëgg dëgg jàngaani baax daa doon nu baax macha allah jërëjëf. kon dafa mel ni euh, Cheikh euh, Ndiaga Mbodj waaw Cheikh Ndiaga nga ñëw yow itam barkeelu macha allah rabbi Cheikh Arouna jërëjëf macha allah yëf yi am na solo lool tabaarakallaahu Cheikh Ndiaga xam naa rek jërëjëf jërëjëf Cheikh Ndiaga. bala bala ñuy ñëw nag ci Cheikh Ndiaga xam naa ni daal yëf yi tey yéemi na yéemi na lool ndax yëngu na macha allah te itam li ci gën a am solo njaasaan rek ngeen indi wax dëgg yàlla ci njàng mi ci tëgg mi ci lépp njaasaan rek ngeen indi kon yàlla ñu yàlla wuutu ci yéen fayal leen kon demee ñëw ci sang bu tedd bi nga xam ne boobu ba léegi noo ko doon xaar tabaarakallaahu Cheikh Mambu xalifa kunta tabarakallahu eh, ñu ñëw rek nuyu ko dalal ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf eh, Cheikh Kabir. Mhm. di la nuyu. di nuyu kilifa gi Cheikh Sidi Lamine Niass. di ñoo ngi yëngatu fii ci wal fajri mhm. di nuyu mbokki Sénégal yëpp. di ziara kilifa diine yëpp di ci jiital nag alxaaji Maam bu Mouhamed Kunta alxalifatu am li tariqa al qaadiriya waaye qaadiriya bekkaiya muxtaariya xam naa jombul waxtaan na ci àgg incha allah di ko ziara bu baax a baax ci loolu di ziara ahlul kunti yu di ziara shurafau yi njaasaan ndaang guyet sanc buuna ak ndeer ñoom ñëpp leen ziara ci weer koor wu tedd wi di ñaan yàlla fukki fan yi ñu toll di fukki fan yi njëggal yal nañu yàlla boole jéggal di xormati nabi alayhi salaam ci barke weeru koor wi di dellu rek yal na yàlla faj aajo yi allahumma jàmm ji ko yàlla saxal amiin allah nawet bii ñuy xaar taw bi yal na yàlla sotti tawub jàmm allahumma tawub naataange tawub barke allahumma ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf cheikh bi tabarakallahu nuyoo bi am na solo te matale na lool macha allahu xanaa rek bëgg ñëw ak yow ci waxtaan wi waxtaan wi nag fi ma bëgg ñu dugg fa mooy eh, ku dégg Njaasaan sa xel dem ci fii ci boori woon waaye sa xel dem ci tarixa xaadriya waaye tarixa xaadriya ku ne xam na ni nimzaat euh, fa tabaarakallaahu tarixa xaadriya ni ñooñu ci tarixa xaadriya la ñu bokk li ma bëgg nag nga leeralal ko mbokk yi nga xam ne noo ngi seetaan njaasaan naka la duggee ci tarixa xaadriya ak fi mu toogee laaj bu am solo nga laaj boo xam ni yàlla na ñu waxtaane ko mm-hmm. ndax ab tariqatul xaadir dafa yaatu mm-hmm. dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne ni lislaam toll mën naa wax ni tariqa xaadir toll na foofu ci wàllu yaatuwaay mhm. ko def mooy ki ka ki nga xam ne moom lañ ko xamee di si Abdul Qadir al Jeyli mhm. radiallahu taala anhu mhm. nga xam ne bërki démb la ñu màggal guddeem gu tedd gi muy guddi fukki fan ak juróom ci weer wi ci la gane àdduna fukki da ko wor te nekk tifl fil mahdi nekk xalel bu tëdd ci bersa waaye bu bët setee dootul nangoo namp ci ba jant bi soo mu soog a nàmp allahu ah. ku mu jaaxale danga nga jàngul alquran dëgg la yonent yàlla isa tëdd na ci bersa bi wax mhm. inni abdullahi atani al kitab <laughs> nekk xale sa ndaw suñu laxas Cheikh Abdou Qadir Jilani karaamu boobu la ko yàlla defal mu juddu bu ko yaayu joxee ween bi du nàmp waaye bu guddee bu jant bi sooy mu nàmp Bagdad bu jant bi musaa lëndëm ba xamuñu dog jot naam déet dañuy ñëw ci yaay ja ummul xayr Fatima bintu Abdallah gën koo siibe ci umul xayr di ko ndax xale bi nàmp na bu ne woon nàmp na ñu ne dog jot na allahu akbar loolu kiraama la ma wax ni moom la yàlla jël mu gën a siiw ci tariqa bi donte sosu ko nag waaw ah, sosu ko déedéet waaw ah, sosu ko de qaala alfaqiru ahmadu albakiyu anhu afa wa rahima alaliyu alhamdulillahi alladi lana jaal silsilatan nanju biha inda alwajal ci Ahmed Bamba moo wax loolu di tagg silsila wérdu xaadir ñàkk kañaan waaye xam na ni wérdu xaadir fa mu taaju fu taaju la mhm. muy wax moom sëñ Tuuba ne wérdu boobu mu nga jóge ci yàlla sëñ Tuuba yi wax de yàlla jox ko xalima xalima bind ko ci law mahfuus mu jox jibril digal jibril ñëw jël ko ci law mahfuz jox ko sayyiduna muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam jox ko rakam sayyidina ali mhm. mu jox ko taalibeem Xasan al Basri mu jox ko Habib al Ajam kooku jox ko Daawud al Taai kooku jox ko Maaruf Fayruz al Karxi kooku jox ko Abul Junaydi kooku jox ko Sari Saqati Sari Saqati Sari Saqati moo ko jox Junaydi di jarbaata Junaydi jox ko ma Chibli mhm. Chibli jox ko Mouhamad Chambaki Mouhamed Chambaki jox ko góor gu mag nag Taajul Arifina Abul Wafa. Taajul Arifina Abul Wafa moo ko jox si Abdou Qadir Jeylaani. moo tax sosu ko. ah sosu ko. dama la wax lii ma la wax kay sëñ Touba moo ko nettali. téere bi mu ngi jaay. mooy xasir boobu ma ubbee. Mhm. ndax looy wax dafay am référence. dëgg la. qaala alfaqiru. Mhm. Ahmadul Bakiyu anhu afa wa rahima al aliyu. xoolal li mu ci teg. alhamdulillahi allazi lana jaal hmm. silsilatan nanju biha inda alwajal nga xam ne moomu ñooñu jox silsila wérdu woo xam ne ku ci téye ëllëg doo tiit yowmal xiyaam sëñ Tuubaa bi mu ko ko joxee moom taajul aarifina abul wafa hmm. da koo jox tariqa bi jox ko kurus ga ma daan yor hmm. jox ko jàkk yu mu daan yor mooy yet bi jox ko sajaada bi jox ko satale gi ni ko bis a ngi ñëw yow jëli su sa bis agsi sama sikkim bu weex bi bu ko fàtte ci allahu akbar ga mu ko musaa teg per bu nekk dafay sàbbal yàlla naan subhaanallahi subhaanallahi subhaanallah mu ni ko jëli mhm. li ma lay xamal jërëjëf ganaar gu musaa noppi ba mu des sa ganaar day saf day saf ba yowmal xiyaam allahu akbar kullu diikin yasiixu wa yaskutu illa diikuk yasiixu ila yowmal qiyaama looloo waral wérdu xaadir foo dem fekkoon allahu akbar jërëjëf yàlla def na wérdu xaadir tasaaroo na ci àdduna bi ci vingt neuf section nga xam ne ba yaatu na vingt neuf boo demee Inde sept nga fa Inde Inde gi sept ma nga fa loo xam ne wérdu xaadir la nga dem Yemen six ma nga fa loo xam ni wérdu xaadir la fii ci Yaman nga dem Irak six ma nga fa nga dem Afrique du Nord gi cinq ma nga fa boo demee Égypte danga nga fa fekk deux boo demee Albanie Albanie benn nga fa boo ko totaliser na yax vingt neuf section yoo xam ne ñu ngi doxal wérdu xaadir yàlla defee suñu mbokk yu tedd yooyu nga tudd léegi mhm. di waa Nimzaat waa Nimzaat waaw ñoom it yor wérdu yi ñu mhm. tudd Fadiliya Fadiliya waaw Boutilimi di yor ko hmm. Seydiya hmm. Cheikh Ahmed Baba Cheikh Sidiya Baba al Kabir Boutilimi ci Boutilimi waaye nag ah kunte yey sëriñ ñëpp ah loolu la yàlla def nag est-ce que est-ce que ndax Cheikh Sidiya Baba al Kabir bi mu ñëwee ci jàngub Cheikh Sidi Mokhtar Kunte hmm. yàlla def Cheikh Sidi Mokhtar génn àdduna doom ja toog di Cheikh Sidi Mohamed al Khalifa foofu Cheikh Sidiya Baba tarbiya ko ba mu mat mu jox ko wér du xaadir mu dem toog Boutilimi loolu la waaye nag boo gisee nag kunta nag am ci ndam loo xam ne kenn amu ko ci fii ci Afrique yi ñuy waxee. Mm-hmm. mooy li ma lay bëgg a wax. Mm-hmm. ndax da nga ni xaadir ya waaw waaye da nga ni bekkaay yi. Mm-hmm. ni muxtaar yi. war ngaa war ngaa laaj loolu xanaa. xaadir ya bekkaay yi. muxtaar yi yi war nga koo laaj. waaw lu ko waral. ok baay <laughs> nee naa la xaadir ya Cheikh Abdou Qadir dañ ko ko dàkkantele. waaye leer na ni sosu ko. waaw bekkaay ñun dañu am suñu maam ju ñuy wax ci Ahmad el Bekkaay. moo tëdd ca walaata moom la ziyaar gaynde yi doon ziyaara ca ba mu muy bëgg a wax mm-hmm. yaa man tanazzaha bilkamaali an waladin wa walidin xussa bilbaqaayi an mm-hmm. Mm-hmm. wa walidin xussa bilbaqaayi walqidami bisay akookin bisay akookin xadimin ndeysaan nag na din fajasin bi tam tamat dam damata kasa yaa xame mhm. barik lana ardana bil bayi an ajalin wa xablana nikmatan tuula mina ni ami wadul lisan si baay mhm. wa min kulli aqaaribin wal xayaati ma sha ami mhm. afit sunoo bi wa zan zaman maa inzilat wasit salaatan alal muktaari fil xidami góor ak jigéen mag ak ko soppa góor sa wala tax leen ni say baaraam ñu màggal ci xaay bi Cheikh Kabir uh-huh. bu ñu ko jàng uh-huh. lépp luy ràgg mm. luy feebar mm. lépp luy ñàkk uh-huh. jàng nañ ko fi ci wal fajir <laughs> waaye def leen nii ci loolu waay Cheikh Ahmed Dakaay dafa ñëw walaata quinzième jàpp seizième déedéet war a dem Makka ak fa guddi fekk ñu tëj buntu dëkk bi ndax mhm. jamono yi dañuy tëj frontière ba waaw dëkk bi dafa amoon miir bu koy tëj dëkk naar la daan biddo mhm. mu fanaan ci biti dëkk ba ñu ni gan gi ñëw ci guddi de gaynde yeeg till yeeg segg yi reere nañu ko hmm? ndax ah, àll la woon yàlla def ñu xëy fekk gaynde ya boof till ya boof bukki ya tàllal ay loxo di ko ziar ñu entré ko ci dëkk bi ñu ko dañu bëgg nga ñaanal ñu yàlla ndax dëkk bi sonn nañu ci rabi àll yi mu taxaw wax yaa man tanazzaha bil kamali an waladin yow mi nga xam ne sell nga wëlis doom wa walidin ak bàyyi amoo doom amu doom lam yalid walam yulad wa walidin xussa bil baqaai wal qidami yow yow yaa jagoo des ba faw nag yow nag yaa fi des yaa fi jiitu it ku dul yow nekku fi woon mm-hmm. bi say akookin wala ay turu yàlla li mu tëgg nag mhm. qadimin abnadin fajashin bi tamtamak damdamak ha kaasa ya ahimi <laughs> barik lana ardana ñoo ngi lay ñaan nga sotti barke ci suñu suuf si bil baayi an ajali wahab lana tu nicmatan tuula min an niami sànni ak yërmande ak xéewal gu du dakk ba faw watrud li saakiniha mhm. maa ngi lay ñaan yow yàlla nga dàqal waa walaata yi fi nekk ci ay rabi àll mhm. ak ak yuy lore ak i jaan ak ñoom seen yàlla def lépp toxu dem muy bëgg a jàll ñu ni ko déet dàq nga loo xam ne ne sonaloon nañu waaye am na lu lu yées loolu te mu ngi fi hmm. muy leen mooy lan ñu ni ko ak réer diine ju tumuranke hmm. xam-xam tumuranke na bi loolaa waral si am na bekkaay des walaata di jàngale diine ba yàlla moom ko fa bàmmeel la ma nga fa ñu suul ko yàlla def ba ñu ko suulee taw wàccatul hmm. taw wàccatul mooy desant la bàmmeel ba nekk bu taw wàccee dana sulli bàmmeel ba mu feeñu ñetti nitu yàlla ni leen sama bàmmeel fii mu ngi fii taw du fi wàcc toxal leen ko yóbbu ko ci kaw montagne bi ñu sulli ko ba ñu ko sulee yara yërëm wa càngaay la dara yàquwul moo tax doom ja ni Cheikh Sidi Mokhtar Kunte ni Cheikh Sidi Bekkaay sama maam mooy ki nga xam ni jooy na téeméeri at yoo xam ne rangooñam ferul ñu ni ko lu tax mu doon jooy mu ni benn rakka bu ko rawoon ca jàkka ja bi amrihi naqalal axiyaaru min baadi qarnin fa lam tarmim walam taxuri nee na moo joxe ndigal nitu yàlla yi toxal bàmmeelam jóge ko ca mbartal ma yóbbu ko ca montagne ba waaye ba ñu làmbee yaram wa yàquwul càngaay la yàquwul ñu làmb bët ya ma nga tooy ak rangooñ ya mu doon jooy la ilaha illallah boo xamul Cheikh Sëñ Mokhtar nag. moom la sëñ Touba ni lu mu wax bu ca teg baat lu mu wax loolu la. <laughs> waaw boo demee ci Masaalikul Jinaan da nga ko fa fekk. haza maqaalu siidil muxtaari fil kawkabil waqaadi laa tumaari. Hmm. waxu Cheikh Sëñ Mokhtar kenn du ko dina nattam lu mu wax loolu la. mu ni ba ñu toxalee maamam Cheikh Ahmed El Bekkaay rankooñ yi woon ci. Hmm. téeméeri at nag la wax gannaaw bi. téeméeri at ba fi ma lay wax ma tëdd ca walaata. allahu akbar ñu di ko ziyaara. walaata fan la nekk. walaata mu ngi ci Mauritanie. Ah, Mauritanie ah. boo demee ba Nouakchott. Ah. di nga dawaat lu mat cent kilomètres. Mm-hmm. fa la walaata nekk. Mm-hmm. ca désert ba. Mm-hmm. fa la tëdd nag ba tey jii ñu ko fay ziaro. maanaam kooku moo sos euh, kunti yu. waaw kooku doomam ju ñuy wax Cheikh Sidi Amar Cheikh. moo jël tariqa xaadir moo ñu boole ñun ci tariqa xaadir yi. ci début 16e siècle. 16. 17 18 19 20 ba 21e siècle mhm. kon Kunta am na 6 siècle ci tariqa xaadira kon duñ ci gan <laughs> Cheikh Cheikh bi mu jëlee tariqa bi mhm. ci woyafam ak joxe cër mhm. tuddoowu ko waaye mu dàkkantele ko bàyyam ni tariqa al qaadiriya ñu daw ba 18e siècle góor gu ñuy wax Cheikh Sidi Lamine Zun Niqab ñëpp xam ay karaamam jël tariqa bi jox ko ku ñuy wax Ali ibnu Najib mhm. tukkulóor la waaye shérif la mhm. ni ko téyel ma ko am na kuy gane jamono ci at yii di ñëw moom moom tariqa qaadiri moom moom mbóot bi bu ñëwee jox ko ko kooku mooy cheikhul machaayix cheikh sil muxtaarul kunti est-ce que est-ce que moo ganee àdduna 730 mhm. bi mu mati góoru yàlla ali ibnu najib ni ko sa ndénkaane baaya ngoog yaa ko moom sa ndénkaane tariqa bango mm-hmm. kooku moo ko fëgg moo ko defaraat moo dindi ya ca bokkuloon moo ko tegaat ci yoon yombalaatal ko ñëpp nag ba tey jii mm-hmm. diggante Mauritanie ak Sénégal ak li mm-hmm. ku fi yor tariqa qadiriyya na nga ko sant Cheikh Sidi Mokhtar Al Kounta que est-ce que est-ce que leer na moo ko def mu ñëw nag ci Ndiassane waaw jël tariqa bi jox ko rakkam yu ñuy wax Cheikh Sidi Ahmad ñu gën ko siiwee ci Cheikh Bounama Cheikh Bounama waaw 1800. tariqa bi jaar Fuuta jéggi fleuve Sénégal ñëw Ndar traversé li mu traversé ak la mu jànkonteel ba ñëw ci Kajoor ci jamonoy buur bu ñuy wax Birima Fatma Cubb gannaaw ba mu jëflanteeg Amari Ngoone Ndeela kooku génn àdduna Birima Fatma Cubb dogal ko dànq mu toog fa taal fa daara di fa jàngale joxe wérdu xaadir la mhm. doomam nag ci 1840 di caatam gane àdduna kooku mooy cheikh bu Mouhamad mi sañ ci Diassane <laughs> 1840 gane àdduna ci ndànk 16 hmm. ans